yëq ñoo moom dara. yéen ay waalo ñun ay waalo waalo lañ pire ci papa si yaay yaa ngi dégg fii mooy koñu waalo boo déggee quartier walo fii mooy waalo Pape Bolle suñu papa jëm si yàlla si ñu ngi koy nuyu euh, yàlla na euh, ñu ngi koy ñaanal yàlla na euh, suuf sedd ci kawam. Mm-hmm. waaw waalo waalo yi boo bëggee dégg-dégg pare nañ. Lac de Guiers sequtug ñun dara. seq ngeen dara kay. non non Lac de Guiers ak waalo kay. que parce que xam nga moo tax. Ah. ñun dañoo am ñun si de fii fii la yoroo fii la màggee ñun ku waali yaanu sa dëkk moo tëggul ñun mënuñoo am leader mu mel ni Siteu yaa ngi dégg koñ yëpp gox yëpp bëggoon ko am yàlla def ko xam nga mu nekk diretu jàmm gën xam nga ñu am ko ba pare xam nga di ko fi bàyyi di dem farale Lac de Guiers loolu nekkul lu logique Lac de Guiers nay yam koñam. kon koo leen faral waay waalo waale. ñun waalo waale Siteu Siteu fii la dëkk fii la yoroo fii la màggee. yéen chaque jour Lac de Guiers da woo si combat. déggoo li ma la xanaa Lac de waalo amu fa ñaar fukk. amu fa dara. fii mooy koñ waalo boo bëggee dégg-dégg koñu waalo fii la géejawaay amul koñ bu tudd koñ waalo Lac de suñu dëkk waalo mosu faa ñëw musu faa teg tànkam. looy wax ni. barki Serigne Babacar. non foofu la nekk non non si si te na Mala dem na Sanc dem na Séer dem na Feto dem na Nimb dem na dëkk waalo yëpp. nga ne ma lan barki Rusulaay. boobu ñëwaatal ma si dëkk yi. dem si te dem na Mala dem na Sanc dem na Séer dem na Feto dem na Nimb jàmmi naar. nedd dem na la de guerre mus fa dem bu jugee bëgg bëgg ñuy saakatoo lool duñ ko nangu ñun do suñu mbeur la mom lañ am tay mom lañ am suba allopain ay pal boo moy lan moy jëmu jee ngi ni lool dama ko allopain allopain la ya ngi ni ah allopain àll ba nga xamante ne bu ñang la waaw ragal dafa duggu waaw mhm. ah, fofu mom dego mo la boy daw dang koy dépasser bo doxé do gaaw yegg luy lool yow xam nga lool àll bu yéme la Hmm? xaaral ma dégg dégg ma la. àll bi man la booy daw doo gaaw a yegg boo doxe déggoo ma la doo yegg àll baa mel noonu. bëri na si quartier bii. fii ci buntu kër mbappat na fii fii nga taxaw nii. dëgg la Max hmm. na fii nii. As Mbaye. na si quartier bii nii. Papay Pokola. Papay Xaalim Ndiaye. Hmm. bëri na fii. Ousmane Diop. bëri na fii. Tëysan jaar na fi. fii mooy fan. fii mooy jeg saa waalo. quartier Medoune Ndiaye. kon yéen la Siteu ji. xam nga waalo suuf seen nangu ndox mi jébul loo si ji sax am barke. waalo réew la woon. Mhm. xam nga waalo réew la woon tey jii waalo mooy Sénégal waalo mooy Sénégal boo jëlee tund waalo yëpp nag nga dajale leen. muy fan ak fan ak da ngay commencé Louga rek ngay commencé di dem. Eh, jël Kër Momar Sarr. waaw jël Géew. waaw jël Séer. waaw Jaminaar. Foos Góolam Malla Mbaan Mbaaru Tubaab. Sanc Rissa Tool jël Medina. Cago Ñiij Feto Ndeer. xoolal yooyu xeetu dëkk te yi te yi ma lay wax nii ak dëkk moom alaaj ma gaaya boqal uh-huh. yaa ngi dégg yi ma lay wax nii la teggeel Moussa Fall teg tànkam tës si dëgg waa ji nee na ma dem na fa ma tegalu si tës tës dëkk la tës dëkk la si dëkk waalo yi la bokk ñoo ñooñu tamit dañoo jël xoolal yalmin bi borom dëkk bi ni ko ñun ñu ñoo la jox suñu bopp ñun ñoo lay ngemb kon la teggeel tey yi buy ñëw di xëccoo waalo amu fa dara nañu bàyyi na génn suñun da dëggee na génn suñun ba set bi becc du ñun ak moom faraluñ ko génn nañ si ay booy te gis nga bàyyi la ngeen di def waaye du du du am la dëggee du am Siteu rek ngeen di faralu te la dëggee na bàyyi yaaba ci ta laale laale baaxu góor la luy loolu la xët ji ju koy lëppaa lëpp googu léewtoo naan nii kayam kayam xam nga xeet yooyu tamit ah non non non non non non xeet yooyu tamit ah du yëfi responsabilité uh-huh. waaw buñ la buñ la joxee avance boo ñëwee si bis bi da nga war a ñëw laale da nga war a da war a ñëw laale quoi mais li muy li muy wax si signature ak li muy def ça fait diamétralement opposé waxam geenu bëy la sangul ta dàqul yow jàppoo ni Lac de Guiers day ñëw Lac de Guiers ñëw de combat bi Lac de Guiers waxam geenu bëy sangul tat dàqul weñ a boo xool waalo waalo pire yaa ngi nii waalo waalo pire double V A L O waalo waalo yi waa Mballa Séer Mbaan Ñiig Góolam Lac de Guiers du waalo waalo waalo waalo yi ben yoon la ñoo walo te bu mu ñoy walo xapa layam xapa yem ci walo la bu ko weddee rek seet ma wër ma laaj ma ñu dem ah. ñu ne waaw euh, li ci doon lenn la moy euh, bis ba bu dee bëgg dégg-dégg ay ndékk sax nga fi défar ci si fii si jox ko gañi ñi ngi préparer préparation bu reuy waaw di autorité yi nak ku ci mel ay abou abel ñoñu dañoo wara def ni mala sawaay bu combat ci ta joté yëgite ay bolog yu bëri maye ko. parce que yeen dëgg yi ngeen wax ni sénégalais sa amna na ñoo xam ne xamuñu leen. yeen yéen ngi c'est-à-dire li moy histoire. histoire du Sénégal. dëkk yoy dama ci ñëw mais damay lancer wala message ba nga xam dafa am solo. waaw ku si mel ay abou Abel ñoñu da fay jot mala sawaay ci ta di bëré ñu dëkk ci dëkk bi yaro ci dëkk bi magge ci dëkk comme ñun yëgite ay bolog yu bëri may euh ga xalé yi ñu dem fessel euh état taral ko ku si mel ne tey jii ay euh, euh, maire Moussa Fall ku si mel ne euh, maire Sicap Mbao bi bu dee ñu ngi ñu ngi ñuy dégg. Bada Bey ñu lay woo si combat bi Fabintou Ndiaye ñu ngi koy woo si combat bi waaw Mouhamed Bel Diop maa ngi koy woo si combat bi. waaw dañoo soxla mala sax ay bologu piqué yu bëree bëree bëree bëree bëree bëree bëri ñu seen participation. Abdou Aziz Gueye. kon kon yaa yóbbuwoon Sida ba waar. Sida maa ànd ak moom ba àll pan ya moom si ndox mi yaa ngi dégg mu sangu si géej gi ba pare. mu yóbbu si ndoxu dex yi mu lenqaliku. waaw kon kooku sangu na si sangu na si géej gi lenqaliku si dex gi. kon la dagee tey ji dama xamul fu ñuy jaar fu ko daanaka jaar daal si laa xamul man. comme lu suñu grand bi wax rek. instant daana ko pare nañ quoi comprendre nga euh, ñu ngi ko doon ñu ngi waaj ci tous les côtés quoi ci wàllu mobilisation euh, bi yoon moom xam rek surtout maanaam lu mu ñu defar maanaam ñun amuñu fayam parce que xeet yi bëri nañ mu bàyyi ñëpp tuddee waalo waalo yi xam nga loolu daf fort yaa ngi dégg. loolu ñun dañ ko ci sant du ko ci gërëm instant programme nañu dañ fi programme instant bi ne ay ndékk yu amul fenn. ndékk le jour ji. ay ndékk. waaw waxuma ay ndékkantu de ndékk laa wax. table table. dressé waa am nañ kat nag te incha allah añ si lay bokk. buñ demee ba ñëw continuer suñu fête. waaw reer si. la de moom xam nga duñ ko may dara. waaw wala pare nañ de. non pare nañ bu yàgg pare nañ bu yàgg Lac de bu xeexee Siteu duma ko Siteu japp ko dan ko bo beugé deug deug ñun pare nañ pare nañ te estade bi ma ngi ñaan yalla jamm gën manam kuy ñëw na nga sañ sa ba rafet teel a ñëw. gars yi de nee nañ non loolu la bëgg. waaw ki moy suñu grand libaas. aca ngi ni ki day xaar ko dëkk la mom du walo waalo sosé la da waale yaat si moom la du mëna du ma lekk avance la dëgër bu mag moy walo walo ya may dëgg la dëgg fi la ba kon mom da wuy ci la mom du walo walo de ku desay ni dem soso sa ya la yeen nga son nak yen ya nak dëgg ya gën na wax walo walo du walo walo la limul mako na lim walo walo yeb say de sank limul mako yow tamit na lim walo walo yeb dama ni amna am gaget gàgget nit na bala am mala am boo jë gannaaw ma de day xaar waaw bu weddee na laaj la daggeer turandoom wala Ali fi mooy buntu kër Bolle Gueye Bolle Gueye moo daan tëgg mbapat yi tëggal na la daggeer mu berim mbapat berim berim na ay jaar nan fi te ñun nag amuñu ku dul Siteu Siteu dafa gi boo dee dégg Jeksa Waalo fii moo tax ñu naan Jeksa Waalo kon la dageer bu mu jaxasee tundu waalo gi ñu ngi ñaan mbokk waalo waalo yëpp nan ñaanal sunu doom ji Siteu Jeksa Waalo la dëkk mu ngi biir waalo kon la dageer nanu may ñun si yoon la ñu ne. Eh, eh, eh, ñu lañuy daan. saay bëgg naa la. waaw delloo siyaar maa ngi lay. dëkkoo Mbaalo non ñun ñëpp waalo lañ dëkk. yéen non ñun lañ dëkk grand man ko côté bi may waxee quoi. arène nationale arène nationale xam nga ni ren Balla Gaye ak ko feesal. xam nga dañoo dindi saisi. instant bi xam nga dafa naqaree feesal te xam nga Balla Gaye Boy Niang la moo tax mu fees. waa Pikine mënul loo am. déglul feesul Balla Gaye waa Pikine dañoo ñëw waa Guédiawaye ñëw ñii jël fii ñii jël fii stade bi fees. mënul hmm. loo ama waa parcelle ñëwuñ mo tax esaat fessul mais la de Guiers bu ko nexé bu mu indi kenn esaat bi dañ koy wërélé barké barke ci té moy seul mbeur bo xamné mom kessé moy fessal feesal contre Papa saw contre Papa Sow waa ñu ñëwuñu. Siteu gis a fermé lako def def. la gay bu doon bëré bu amé adversaire adversaire am wul public esaat du fess mm-hmm. ama bu adversaire am wul public esaat du fess yaay wax lu graw eh luma lay wax ni dafa leer de. barke alxuraan Siteu booy bëreeg mom bu la nexé bu indi nit mais sa day fess ñun ni ñi démé ci làmbu Siteu moo ma jël cité ñun bo ñu gis lambu cité da nga yaaxani ay colossal lañ du ñay colossal ré ñun ñoo bëgg cité man mi damay job docker la ki teur la ki maçon la kii chauffeur la kii étudiant la xolal ki receveur la yaay dégg mais ñun manam ñun ñoo bëgg bo ñu gisé ni ñi démé essence da nga japp ni ñun duñ tour lé fi kenn du fi tour kenn du fi naan mais manam ñun ñoo bëgg cité barké alcorane té le 19 ngay gis lu garaaw. ma de gise lañ koy def. ba pare xeex ba. déggoo ma de dañuy bëre dañuy daal ñun xam nañ Siteu ñun des fois dañuy gis internet bi sax ay nit di lim ay mbëru lamsaar naan ñoo mën Siteu mais ñun ñoo doon dem. mais mais ñun ñoo doon dem lamsaar di toog di seetaan Siteu muy contact. barke alxuraanul karim. Siteu amul mbër bu munul daan. nit koo ko wax na du ko gëm. garaaw ñun Siteu Siteu bi muy bëre bapat mom ak ay Ousmane Bane ay Ba Vieux ay mom ak xolal mom ak ay Papa Dia yaay ngi dégg grand ñun bobu lañ commencé ci te barke alcorane amul mbeur bu ko daax bëre ci lamb ji lima lay wax ni du ko ay question waxu bëgg bëgg ni de mais ci te dafa mën a bëree barke Seydina Mohamed arène nationale dañoo dindi siège yi neexul feesal parce que dinañ siège yi mais grand la 19 xoolal del xool la guerre bu mu indi nit dinañ duy stade ba mu fees. mais sax dégg na la ambiance ambiance bi. café Touba bi dana ñëw. bëre bëre bi. indi daan daan bi déggoo ma de. mais rek rek jël mu ne ma si ambiance bi si lépp dañ naan Siteu mais su daan. déggoo ma de grand Siteu lépp lay def. waroon na su la grand Siteu mooy làmb Siteu nu muy baaxoo sax Siteu baaxu bu mu baaxu mbëri dañ koy jël. Ama Baldé keroog nga ko suñ baaxu la jël waaw jaay bi nii Sa Thiès ba mu ñëwee moom la jël. waaw. déggoo ma de. gaan le 19 déggoo ma de. à ah, suivre gaan le 19 lu garaaw ngay gis.